abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot yu wér te wóor aju ci réew mi ak bàyyi xel gi seen info point net ñu ngi leen nuyu fas yéene defal tënkub xibaar tey euh, mardi di 13 mai 2023 ñu tàmbali ko xibaaru biir réew mi. député Massata Samb ak Mamadou Niang ñoom nag génn nañu kaso gannaaw bi nga xamee ne nag def nañ fa juróom mbenn weer ñoom nag euh, xam ngeen ne ñu leen tegoon loxo gannaaw bi nga xamee ne nag dañ doon joteek député bii di Amy Ndiaye Gniby Euh, te sax euh, am kenn ca ñoom Massata Samb euh, dooroon ko kii di Mamadou Niang weqoon ko loolu nag taxoon kon ba janvier ba léegi ñu ngi woon kaso ñu leen doon toppee nag mbirum coup et blessure et menace de mort fi mu nekk nii nag bàyyi nañ leen kon génn nañu kaso ñoom sax gannaaw daan boobu waroon nañ jox itam ki nga xam ne moom mooy député boobu di Amy Ndiaye Gniby lu toll ci cinq millions de francs fa ñu fàttali sax ne jamono jooju ñu koy def dañoo xamle woon ne joxe xibaar kon ne kii di député Amy Ndiaye Gniby dafa fekkoon mu wann lor moom sax kon fan yi de ngeen ñu ne wasin na ay xew-xew yoo xam ne nag euh, dafa ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu euh, xabaar yi lu si mel nii ay signal yi ñuy coupé wala sax ay journaliste yoo xam ne dañ leen di tëj wala bokk yeneen i jafe-jafe yoo xam ne kon ñii daal di yëngatu si wàllum euh, liggéeyam taskatu xabaar dañ koy am loolu nag tax na ba mbootaay bi ñuy woowee coordination des associations de presse di CAP ñoom nag nee nañ daal lu yàggul dara ñu ngi xalaat di organiser daal loo xam ne journée sans koy tuddee maanaam bés boo xam ne daal euh, benn xabaar du ci am wante itam ab éditorial euh, commun muy daal loo xam ne ab article boo xam ne kon dañ cay dëppoo di ko bind euh, ci bés boobu nga xam ne kon dañ ko bëgg a jagleel bés boo xam ne presse du am wante itam lu ñuy woowee ay lu ñuy woowe kon ab conseil des médias muy nag ndaje boo xam ne daal dañ cay daje ngir waxtaanee mbirum taskatu xabaar loolu nag kon ni ma leen ko waxee waa coordination des associations de presse dik CAP ñoom ñoo ko xamle ci daje boo xam ne kon ñu ngi ko doon amal. ci ab communiqué boo xam ne nag ñu ngi ko génnee bésub démb coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag euh, dañuy xamlewaat ne daal li nga xam ne moom mooy dialogue bi njiitu réew mi Macky Sall woote demuñ ca tey demuñ ca suba wante it ñuy xamle ne yebaluñ kenn mu dem taxawal leen kon ci boobule jaloog te nag képp koo xam ne kon da nga bokk ci parti bi daal te dëppoowoo ak ñoom dogal yi nga xam ne dinañ ñi koy jël daal ñu ngi lay avertir daal euh, di wax ne kon daal euh, conséquence lu ca kon na nga ko euh, gar ñoom nag waa coalition bi kon gannaaw bi nga xam li ni ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ndaw yi nekk ci euh, taxawu euh, senegal ñoom nag dañoo gis ne daal seen leader bii di xalifa Ababacar Sall moom la ñuy joxoñ baaraama tuuma ci boobule communiqué ba tax ñoom itam bésub tey bii ñu amal ab communiqué di ñaawlu kon euh, li ni ñoom daal euh, ñu jàppee ne daal euh, li nga xam ne kon communiqué boobu nga xam ne kon daal ñii def nañ ko kon ñu ñoom dañoo jàpp sax ne ñenn ci li nga xam ne moom mooy Euh, coalition Yewwi Askan Wi kon ñoom ñoo ko xamal ñuy xamle ne daal boobule communiqué daal nekkul loo xam ne li ñu mën a nangu la te sax ñu jàppee ne daal dafa am benn groupe euh, bu nekk ci taxawu Sénégal euh, boo xam ne daal ñoom dañoo daal bëgg a siiw rek moom moo tax kon ñu jóg di amal li ne mel mais nag ñoom nee nañ loolu nanguñ ko tey nanguñu nanguwuñ ko suba te sax ñoom dañuy assumer maanaam dem bi nga xam ne seen leader di Khalifa Ababacar Sall dina ko dem ci bile dialogue ñoom ñoo ko dañ koy assumer dinañ ca dem kon te dinañ ko assumer xam ngeen ne ay fan yu néew moo des ñu dem ci lii di tabaski wante nag li ñu nemmeeku daal moom mooy marché Daara Jolof bi nga xam ne moom moo gën a mag ci Sénégal wante sax ci sous-région bi maanaam ay dëkk yu ñu dendal te nag euh, ci wàllum jur moom ñoo ci gën a bëri ñoom nag ba léegi dañoo gis ne daal yóbbooguñu seeni xar ci li nga xam ne moom mooy biir dëkk bi kon ngir nag kon nit ñi mën a am ay xar ci tabaski bi loolu nag ko xamle moom mooy Ismaïla Ismaïla Ka di président bu syndicat national euh, de pasteurs du Sénégal mu ne loolu nag li ko waral bokk na ci manifestation yi nga xam ne kon nemmeeku nañ ko fan yi ñu génn ci réew mi te nag mu jot a def ay yàqu-yàqu yu bëri nit ay nit ñàkk ci seen bakkan xibaaru sport euh, lañ koy euh, jeexale fi mu nekk nii nag euh, xam ngeen ne gaynde Sénégal ñu ngi waajal ñaari match yu ñu war am seen digg ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Bénin di bokk ci li nga xam ne moom mooy qualification bu Coupe d'Afrique wante itam match amical ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Brésil xam ngeen nag amoon na ñett ci joueurs yi ñu doon xaar wante nag ñaar ca ñoom. fi mu nekk nii ñëw nañ muy Idrissa Gana Gueye ak Alfred Gomis ñoom nag yegsi nañ dëmb ci ngoon kon fekki seeni naataango fële ca eh, Diamniadio beneenub xibaar ñeel sport moom lañ koy jeexale muy Kylian Mbappé di attaquant bu Paris Saint-Germain moom nag dafa xamal waa clubam daal ab lettre boo xam ne yónnee na leen ko démb ne leen nag eh, li nga xam ne daal moom mooy eh, ñetteelu saison bi fas yéenewu ko fa defee ko nag fas yéenewul amal beneen saison ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Paris Saint-Germain muy nag eh, diggante deux mille vingt quatre ak deux mille vingt cinq loolu nag tax na ba ñu njort ne fi mu nekk nii kon eh, club ba dinañ ko jaay moom eh, joueur bii di Kylian Mbappé lii la ñu doon tey ci ay xibaar seen teewlu di leen jox di daje ëllëg jaa ngeen jëf.